mais Peñemoulis Pawlish Papalish na nga def euh, anniversaire bi tey laa ko yëg mais yow sa anniversaire xam nga ni dama war a yónnee vidéo souhaité la bon anniversaire sama rakk ji sama xarit bi sama doom ji bon anniversaire à toi la star planétaire Pawlish dégg naa yaa ngi Dubaay nag dafa nànk de naare bu ñu la jàppee du ñu de.